naa ñëpp fi laay tàmbali yéen ci seen revue de presse sa kaas nga guux bala ngay naan bay simbuleex ma wax xew ci réew askan sunu gaal bu sedd bi neex mu nugg ba ngeen fàtte ni ci weeru koor la nekk tribune yëgle naan maan weeru koor nag daa am lu muy bañ ñenn xeet yu neex di da koy bañ mani parfum ba ci cuuraay laa wax xaxul ci koor gi de oustaz Mohamed Mbaye ca seen TV di yëkkati ay kàddoom naan moom kay nan ko ndax xeetu cuuraay wu ndogu jubilé gi yi def ci seenum xel yëgle kaay gi naan man kaay moo nag ku ne xam na ni tey ji la àllarba alxames ak àjjuma doo des de ñu ne samedi ni dimanche ñu dem nag ca wot ya libération ni ma gaa yaa ngi wax kenn ku ci nekk ci ñoom loo man rek yaa ngi di ko wax ngir am ndam yëgle kaay gi naa ma engagement yi nag mais li coow li di bari bari violence bi mu àndal doo jaaxal nit ñi bu nu dajee musiba mbaa ba kumba lu la ñuy nemmeeku ay xastanteeki saagante yëgle kaay bu ñii dee sali ñii di sànnente xeer ma yi wax de mais ak bu mujjib des leen a ca fa nga xam ni moo di ca daara musti ak ca ndar géej ca dëgg-dëgg violence beeg coow li moom mën naa ñàkk nag kaay ma wax la yëgle gi naan maan siège jomaay président ba nga xam ni moo ne ca Kaffrine des koo taal de jëppet lanu ko def taal ko muy jëfa fa fii xoolal lii yëgle gi naan maan ah lii nag wóoratul ndax xam nga ni bal jot naa tàkk ci jëmi boppam lay lay la la ay affrontement yu doy waar moom la ñu nemmeeku ca ñooro xeex bu fatt taraj kay moo ndax violence bii ñu nemmeeku ci géewu politique gi jërtu woote réunion lii enquêteur yëglekaay moom li ko yéem te ëlëm ko jaaxal ko mooy mbooloo mu fata taraj mi ñuy nemmeeku laa wax ci karawaan yeeg mitin yi ci campagne yi laa la wax moo ko woote mbooloo mu fata taraja lay wuy si yëglekaay gi naan man nag kaay bul jaaxle de bul xool mbooloo mi rek daal ni diw gañe na de déedéet bul wax loolu de ngay si nga ful bii mbooloo mi ak électorat bi du benn de waay waay ci dëgg-dëgg mbooloo day dalalum xel waaye nag kaay moo wax la gis nga bala ngay xam ko gañe dëgg dëgg dëgg ñu ni wiiw léeg-léeg nit la nga deen yow la àndal fekk na buy dugg ca bañ gàcce ga di woteel keneen candidat yaa ngi def lu ñu mën ak lu ñu mënul di daj la mburu dajul ca ban ba ngir rek nu woteel leen yëglekaay gi naan man léeg-léeg nu yëkkati seeni kàddu sax wax dañu jàllale bu rëy ni réew mi dañ koo jël rek jox ko ay aventurier nay leer de Sénégal gi du almet goo xamante ku nu neex aal mu kos déedéet Anta Babacar Ngom yëkkati ay kàddoom naan jot na nag ñu rompre génération góor yi nga xamante ni la wax ay homme politique lañ leen mën a jàppe ñoo xamante daal ne jigéen moom war naa mën a jiite réew mi ak ay dëgg Siri Jomaay Fay todd ñu naan ko danger la ci réew mi askanu sunu ma nga naan é du ci réew mi askanu sunu gaal leer xam nga ñen ñooy danger nag dëgg dëgg danger ci réew mi ñi nga xamante ne dañuy sàcc moomeelu askan wi ngir yëgle kaay naan ma Jomaay ci jëmi boppam ma ngay wax ca ña nga xamante ne ñoom moom bu taxawee ak lu mën a xew dina taxaw ci seeni mbir ma ngay wax ca pétrole ba ci jigéen ñaak presse ba wal fajri ko di cee jox ko kàddu gi mu naan dëkk bi nag faaw mu sérieux waat lu ci am ba des daal moom ba Siri Jomaay Fay boppam ne day raxas maas de mboole seen lu dàq ci riiw maas kon sunu gaal gi dees na ko bërës mu jàll moom ba siiroo fépp fu mu dem mbooloo mu fatatale taxaw di ko tàccu la ko yuuxul eh waaye lépp lu mu wax kàddu gu mën a doon ñu ni wéy danaan ko ba siirooy sonko sonko mooy jomaay jomaay wëni sonko waay sëriñ boobu itam di aw candidat wu nekk ci riiw maas kon sunu gaal yëgle kaay gi nan man borom tool yeeg daara ji ak entreprise yi moom sëriñ boobu ne bis bu toogee daal moom li mu xam ba xam ko mooy xale yi dinañu liggéey na candidat yi mu gis lu dul collecté ay taxe créer mooy emploi te dëgg-dëgg moom Serigne Mboup moom Kaolack ndangaan borom cœur de ville day li mu bëgg mooy toog jàppale ndaw ñi ñu lëggal Serigne Mboup ba nga ca emploi ya nañ dem seeti keneen yëglekaay gi naan man jërul sori xoolal ma kii di Aly Ngouille Ndiaye ci jëmi boppam moom ci jamono ji gaa yi wax ci ay jeunesse ak yu ni mel moom daw na dëkk mbay ma de ne Sénégal mbay rek mbay bu nu bëggee développé faaw nu bay tax na ne bis bu faloo day lu tollook mille milliards laa la wax ëpp lew dina ko yëkkati teg ko ci mboloxol baykat yi ñu doxal Aly Ngouille Ndiaye daal mbay mee ko yiteel nanu wax ci keneen ma xool lu ko ko yitteel yëglekaay gi naan man Aliou Mamadou Diallo nii seeti moom ne wax ji wax ji wax ji xam nga lu mu ñu ne ko lana Aliou mu ni askanu sunu gaal daal sunu yitte mooy mu développé nag jëm ca kanam kese dong la ñu soxla Aliou Mamadou Dia daal aw développement lay waxtaane naan développement développement nga woote développement kooku Amadou Ba lay wuyoo yëglekaay gi naan man kàddu ya mu yëkkati mooy dinaa jigéen nag bu baax a baax sama aw askan moom Amadou Ba ay karawaanam de am na gox goxaan yoo xamante ni ba mu fa yeggee kaay yëglekaay ni ma nañ dem ca Louga Mamour Diallo ci jëmi boppam ak Moustapha Diop mais dans la main ngir rek ki nga xamante ni moo di Amadou Ba mën a am ndam nañ dem ca Gossas Adama Diallo DG Petrosen Oldinesa Alpha Diagne laa wax Ousmane Wade Mbaye Samb ak honorable député ñoom ñëpp laa la wax de noo ànd maase booloo fasante seeni buum jébbal ko Amadou Ba yëglekaay gi naan man Adama Diallo kay réussir na lañ naan le pari de la mobilisation yëglekaay gi naan man ca Gossas kay ba fa Ba ñëwee foofu sànn mbatt mu takk bu waxtaan wu neex xeex ba ngeen fàtte ni Gossas ci jëmi boppam fa la bun Abdoulaye Dione dëkk mbooloo mu fatt taraj mu wuy si Amadou Ba de yéem nañu ñun mbooloo mu fatt taraj uwi pili Khalifa Ababacar Sall yëglekaay gi naan man moom la yittee mooy ko construction <laughs> Khalifa Sall nee Sénégal daal faaw mu tabax ko minutes pour lire l'essentiel lu benn Makhtar Diop gi yëglekaay gi naan xanaa xamoon ni cinq cent nga xamante ne moo ne ca PDS xam nga kan la gën a jege fi ne fi ne waaw Khalifa Ababacar Sall gaa ñaa ngi defi démarche de ngir mujjee ci moom waaw kii ba nëgë fan la mujjee moom Karim Wade waxagul ba nëgë ni gi naan man Karim Wade naan ma nga naan fi ne nii fi ne nii jëlagunu benn décision nag lu ci am ba des daal moom ma nga naan deuxième tour moom dina am ma nga naan nag jëlaguñu wenn décision candidat yu bari woo waxtaan naa nag waxtaan wu yaatu ak Khalifa Sall lu ci am ba des daal kaay moo xale élection yi moom fi mu toll nii tembe li ci des mi laa wax lépp lay saytu xool jëwrin ji di Maxtaar Siise naan lépp dina jaar aw yoon moom élection yi lée élection yi ñëwagul de waaye yëg si na naan man kaay ma wax la nataali ñi nga xamante mën nañ leen jàppe ay première dame xëy na seen jëkkër di seen boroom kër gagné ñu door ay première daam quotidien yëgle kaay naan maan kaay ma wax la am na ay bule yu dem ca Maroc mba de am na dix députés yi am na dix députés ak vingt responsable fédération yu fa seeni ànd ak Benno Idrissa Seck ne buñ ko falee dina liggéey lu raw la mu defoon 2007 Ama Baldé mi war a laale Gris Bordeaux yëgle kaay gi naan man bu fa jëlee aw defet mbaa niil mën naa yàq aw carrière am tey <laughs> doomi faa lay Baldé ji sëy laatir bu baaxee rek ba suma clavier ñu dem ba suba ak ñu doore ko ak li nga xamante ni moom moo di xibaar yi euh, fii nag euh, ci Thiès Info dañu koy doore ak lii gën a fës ci réewum askan sunu gaal rawatina nag li nga xamante ni ku ne xam ne ni ñu ngi koy euh, waajal di ay campagne yi nga xamante ne ci lañu ne waajal élection yi élection yi war a am ni dimas dimanche ginu jëm benn ñaar jàpp ñett ay ba ñeenti fan rek képp dong sënkam daal ce des nag ba ndege ni ñaar ñii kii di Karim Wade ak Bougane Gueye Dany ñoom la dippee nañ leen ay faiseur de roi ndax fi ñu toll nii tembe kenn ku ci nekk ci ñoom pois ba nga yor ci lu jëm ci aw ay xob ak aw askan di aw nit wu ànd ak yow dafa takk lool waaye ñoom joxonagun kenn ni moom la ñu àndal ci li nga xamante ni moo di yilee may sax Meïssa Wade sax jot naa sax nag moom yëkkate ay kàddoom ba rek fii ne nii nag rek leen te tey te xam ni jëlaguma benn décision am na ñàkk ñoo xamante ni fi mu toll nii ñi ngi may woowee gauche à fu ne candidat yaa ma fay woowee ngir ma ànd ak ñoom waaye daal sama aw waxtaan ak Khalifa Ababacar Sall sori na lool yëglekaay benn Makhtar Diop gi sax jot na cee yëkkati ay kàddu te naan moom kay moom kay moom kay fi mu toll nii daanaka cinq cent mille cinq cent mille xobu euh, Karim Wade yi kamu gën a jige gën kaa xeeñ kooka mooy Khalifa Ababacar Sall mbokk yi élection yi ñu nekk ci waaye nag di ci nemmeeku léegoo lekk violence bu fatt traj violence moo xamante ni tëtëtët eh, askan wi du ko mën a dékku benn yoon te itam des ko war a wattu googule violence ñu daal di nemmeeku nag violence gu fàtt taraj gu nu nemmeeku nag mu am ci li nga xamante ni moom moo di élection yi mu nekk lool euh, ga ñi daal rafetlu wuñ ko ben benn benn benn benn yoon euh, ñu dem fa nga xamante ni rek moom moo di ca rawaanub Cheikh Bara Ndiaye ba ak Mujib euh, ñoom ca fa nga xamante ni moo di Daaru Muxti ak fa nga xam ni moo di ca Saint-Louis day ñoo attaqué seen aw karawaan mu nekk loo xamante ni nag kenn rek ci réewum askanu sunu gaal da kaa rafetluwul benn yoon siège u Diomaye président ba nga xam ne moo ne ca Kaffrine gaa yi dañoo dem almet rek ak di ko fas yéenee taal taal ko daal maanaam taal nañ ko euh, ay coup de feu itam daal di nañ kaa nemmeeku ay bal yu jot a tàkk tuy tuy jëni tulleeg màlle ah ay affrontement yoo xamante ni daal amoon na fa nga xamante ni moo di fa ñooro xeex bu metti lool daal di fa am mu metti ñëpp nag waaye nag li ma la mën a xamal mooy mooy fii ne nii nag candidat yi nag kenn ku ci nekk ci ñoom yaa ngi di xaas jóg di wax l'observateur li ko jaaxal mooy mbooloo mu fatata rek mi ni gis nag di ko nemmeeku saa su candidat yi euh, wootee rek dañuy gis ni mbooloo dañuy génn bàbbeeku wuy si karawaan yeeg mitin yeeg yi mu ngi xam le sax naan mbooloo ful bi ngeen di gis bokkul ak ñi nga xamante ni ñooy dem ca bañ ngàccee woote nit ki mën ngaa am mbooloo mu fatt taraj nga woote nu wuy si la dem ca bañ ngàccee bañ laa wooteel nit ki mën ngaa woote doo gis mbooloo nga dem ca bañ ngàccee gis mbooloo kon foofa la mbooloo ma baaxee kon nag mu nekk loo xamante ni daal lu mat a bàyyi xel la Euh, kii di Boubacar Camara moom daal dina yëkkati ay kàddu daal ni ay aventurier daal moom euh, jox leen dëkk bi risque la euh, keneen ne ku yëkkati ay kàddu tamit wax kooka Anta Babacar Ngom lay wuyoo moom mi jigéen ci ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo di góor yi mboole seen candidat yi benn jigéen boobu rek dong moom moo ci nekk di Anta Babacar Ngom yëkkati na sax ay kàddu naan man nag li ma bëgg nag ca dëgg-dëgg mooy góor ñii nag nekk fii homme politique yi daal di nga xamante ne échoué nan maanaam ñoom ñàkk nañu li ñu war na liggéey mënuñu koo liggéey échec nañu jóge fi nag ñun jigéen ñu taxaw wane suñu bopp Bassirou Diomaye fay nag daal di tontu ñi nga xamante ne ñoo naan ko rek euh, yow ci sa jëmi bopp aw dansé nga ci askanu sunu gaal moom Bassirou Diomaye Faye nag borom mbale gi nee na daal ñoom ñi nga xamante ne ñoo koy wax ñoom ñooy sàcc moomeelu askan wi ba noppi nag bëgg ni man maay dansé bi déedéet au contraire ñoom ñooy danger bi lu ci am ba des daal mooy Bassirou Diomaye Faye euh, fépp fu mu teew ci réew mu askan sunu gaal mbooloo mu fatt taraja taraja taraja taraj mooy génn rek daal di ànd ak moom moom Bassirou fay Faye Serigne Mboup candidat daara yi Serigne Mboup borom euh, employé yi Serigne Mboup mi nga xamante ni wax dëgg moom lii te mooy askanu sunu gaal euh, ñi nga xamante ne ñoo di jeunesse bi gis fi seen bopp bu baax baax moom nee na ci jamono yi nga xamante ni yeneen candidat yi ñu ngi collecté ay tax moom ne bu toogee ay employé lay teg ci axe ba rek gone yi ñëpp rek mën a daal di am aw xëy daal di liggéey Aly Ngouille Ndiaye yëkkati na ay kàddu moom ne waxul leneen euh, ci lu dul li nga xamante ni moo jëm ci wàllum mbay mi moom Aly Ngouille Ndiaye nag ne bis bu faloo lépp lu jëm ci wàllum mbay dina ko gën a euh, ñoŋal ci réew mi askanu sunu dem na sax ba naan dinaa yëkkati mille milliards euh, teg ko ci loxol baykat yi ngir rek Sénégal jëm ca kanam Aliou Mamadou Dia nee na aw xeexam moom itam du leen lu dul Sénégal jëm ca kanam muy développement moo di aw xeexam Amadou Ba ci jëmi boppam moom mi nga xamante ni fépp fu mu teew daanaka mbooloo mu fatata rek daal di kaa wuy si nanu dem ca Gosaas ca fa nga xamante ni rek dëkk Boun Abdallah Dionne la di candidat moom ba mu demee ca Gosaas seeti Adama Diallo ak ñamu àndal mbooloo mu fatata rek ñoo génn daal di kaa wuy si moom Amadou Ba noonu la demee ca Louga ak fa nga xamante ni moo di ca Gengi neew également xalifa Ababacar Sall moom daal moom ne wàllum tabax réew mi moo ko ñor Déthié Fall itam yëkkati na ay kàddu naan daal wax dëgg Euh, Thiès daal bëgg mu gën a nekkaat capitale du rail kon nag waa Thiès wuy leen ki nga xamante ni moo di Déthié Fall moom daal ne bis bu faloo daal dina def seen ndëkk bi aw capitale du rail mu gën ko ko dekk daal di ko jëmmal mbokk yi nu euh, ñu fàttaliku rek ni lii nga xamante ni moo jëm ci ay xet gu neex des koy tere ci weeru koor la nu nekk ku ne xam na ko kon nag aw cuuraay saxaar sa des koy tere bu ko ko kenn taal mbaa ay parfum de chambre am na sax ñu ni borosu dañ koy tere wala sax li nga xamante ni moo jëm ci parfum yaram yooyu yëpp des koy tere ci koor gi enquête moom la mu def mooy indil ma mboole seen ñi nga xamante ni rek man leen leen jàppee ni daal bu seen jëkkër faloo ñu doon ay première dame ñoom nag ñëpp daal wax dëgg yàlla gisuñu ci kenn koo xamante ni rek euh, geneenu xeet nga gudul xeetu askan sunu gaal maanaam amul aw tubaab nay leer mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen dig dajee ba ak jàmm ak salaam jërë ngeen jëf fati waaw waaw ngeen jëf jaa ngeen jëf mbokk yi ay ca dikk leen ci kafe euh, gi ñu simbaleexo bu baax a baax a baax a baax café gi nag des koy simbaleexo maa la wax lii des koy waxtaane waaye itam des koy simbaleexo ba mu neex waa cuuraayu weeru koor nag nu ko nit di taale nag ah waaye nag am na ci ñu bëgg lu yomb nag ah woor ah bëgg tëdd ci lal bi nelaw taal sa cuuraay di seetaan sew film ban la ka pëk pëk pëk maa nga ko yeede pëk pëk pëk pëk sëñ diw pëk pëk baay diw nga ne ñun la kaay ndogu nga ne ah koor gi saf na waaye nu mu safee waaye yii nag xam nga nag Sénégal gi nekk am na yoo xam ne su ko war a waxtaane nag yow nag mën nga woor yéen doo tëdd di nelaw nu nu yeele di la ndogu ndari koor gi daa saf tey wayow waaye ci naaj wi dang dangi yenu saaku suba ba ngoon nag est ce que kooku bàyyi xel ah ki ci aw bi di gëm jaay suba ba ngoon ñàkk nag ah ki yenu marchand ambulant ayo loo jël chan nangam ah, lii laa koy jaayee posonu mbooj kaña fel mbat ñooñu nag ki yor aw sareetam di roñ mbalit ba ngoon nag ah sëfoor bi ci aw wataam di dawal jëm longo voyage nag rawatina ñi jëm Fuuta waa ña dëkk Fuuta nag gis nga dama ni bul nekk ndakaaru njaay jël joob di dund lu ba pare bëgg a sonal te nag yenn borom kër yi nga xamante ni ñooy nelaw ba heure boobu bu nu yeewoo ah ndogali hmm, looy xaar ba heure bi xoolal ba noonu naan ñu ngi waaj a kii gaa sonal seen jigéen ñi. kafe gi eh, dafa tàng yow eh, suukar si doyul. ana bisaab bi eh, ndax lan loo toogu tey eh, mburu yi nee naa la de ci def li lan jigéen dafa son ne ci waañ lijjanti ba jox la loo xamante ni yow moom ngaa jëfandikoo di ko lekk war nga koo sant waaye bu ko ërtër xanaa nga jóg sax jàppale ko waaye ni nga di nelaw donc ba ci sot la bokk góor ñi dee leen jëli mburu di def leneen ak leneen am na ñu koy def nag ah déedéet waay maa ko diggee maa ne képp ku commentaire ak ko mën a doon ak foo mën a ne ci réewum askanu sunu gaal saw tur moom xuma kan waaye yow moom des na loo ko tuddal du maa ko diggee ay ci kon faaw rek ma tudd tur yëpp yëpp yëpp bàyyi ma wenn tur nag tur wu ci ne rek dinaa ni la diw de ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax rawatina nag euh, tur yi nga xamante ni ñoom la ñu euh, nemmeeku ni euh, ñoom ñoo daal di amal aw commentaire ay ca ca njëlbeen ñu doore ak kii di Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane ñing ñu ngi koy biggee bu baax a baax Pulo sama xarit la El Ba maa ngi koy biggee Issa Dangora Abdou Kane maa ngi biggee Keba Dia di biggee Ndiaga Wade di biggee Baye Modou Yade di biggee bu baax a baax Omar di biggee Binta Sarr di biggee Sosina Sarr waay waaye yow suuf si na maa ngi lay nii Moustapha Fall sama xarit maa ngi koy bigi di ko jox wàcc waayam bu baax a baax Fall njege yaaram Fallen bi kenn du yow ci réew mi maa ngi bigi sama baay Mamour Fall euh, ca euh, Touba di ko kontaane bu baax a baax di bigi Ousmane Samb di bigi Cheikh Wade Mor Seck maa ngi koy nuyu bu baax a baax Michel tiin itam euh, Cheikh Omar Diop maa ngi koy bigi ma bige gi bige naa ko daam kunte ñaari ma bige gi ma bige gi benn laa ci ma bigee kay nag benn laa ci am saam sekk waa pap Diop ah, ah kii nag maa ngi koy bigee bu baax a baax a baax a baax di ko jox waa waayam waaw moom nag nee na mbàccum gerte daal la koy rey ah, waaw daam kunta maa ngi koy bigee bu baax a baax ma nga naa ma Sonko la ñuy topp de Maodo kan ma nga naa ma maa ngi ci Portugal ñaari Modou Laye bii ñëw nañ sama xarit yi siyaar naa la Mia Diouf Laat Diop jaaraama yow Fall damel jàmm ci yow xéewal barki Serigne Seliou Mbacké waaye amin waaye Ali soble sama xarit maa ngi kaa nuyu Ali Ndiaye maa ngi liy bigi euh, di bigi bu baax a baax waa Maroc nag kii nee na moo Fall damel waa Maroc yow dong la ñuy topp nag topp nu keneen ayca yéen ñi ñuy topp ñëpp moo xam Malick Fall ca pirum ndëri waa Kaolack ndangaan Sédhiou Matam ba ci Kicoor Gosaas fële euh, sama dëkk ba Wile Ngara ah ba ci Sanjara gii sax dañ may teewlu Sanjara Hmm? Euh, euh, Touba gi gi euh, sew xay ñi nge may teewlu bu baax a baax xombol maa ngi leen di bigi bu baax a baax di bigi gàdd xay ak néegi caar ngule kër njaga saar bul fa sama cosaan maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàcc waaye kër Mamour Ngoné du ma leen fàtte mbokk yi ñu jox leen dig daje ba suba ak jàmm salaam de yàlla na ko yàlla def ci réewum askanu sunu gaal gile seen mbokk seen xarit Fall Damel la jërë ngeen jëf fati